ki nga xamante ni rek moom mooy Sophie Ñing mi nekk ci bopp agence pour la promotion et le développement de l' artisanat nag ak ay liste yu bari yoo xamante ni rek nomination yi nag door nañ ko ci ci conseil des bi nga xamante ni rek doon nañ ko amal waral lekk jamono ji ay kaddu commencé jóg ndax ñenn ci ay activistes yi dañoo daal di gis ne rek kii ñu mel ni kii di Soya Dieng daal dinay yëkkati ay kaddum te journal bii di le quotidien daal di koy fësal moo di ne ñu tabb du kenn rek ku dul doomu ministre bi nga xamante ne rek moom la ñu dénk wàllum intégration afrique kenn end des affaires étrangères di Yacine Fall ginnaaw nag ministre Serigne Gueye Diop mi nga xamante ne rek dafa daal di transformé nag ab salle à manger fi nga xamante ne rek moom mooy ca cabinet ministériel ak nomination njabootam gi yëpp kii di Macky Sall nag même bu fekkee ne sax ñu ngi ko doon def nag am na ci leen loo xamante ne doon na ko seet nañ bàyyi nag di saaga rek xelu askan wi ak slogan bi nga xamante ne rek moom lañ woote woon bañ votel leen nag mu nekk rupture mel na ni boobu lee mbir rek jëfewuñu ko di ay kaddu yoo xamante ne daal dina koy postuler nag ci Facebook bu ñu sukkandikoo ba tey rek euh, ci source boobu le journaliste bi di Adama Gaye moom ci jëmmi boppam rek mel na ne daa wànnalul baat autorité yu yees yi ginnaaw rek bu ñu gisee ne rek nguur gu yees gi dañoo incompétent ndax li nga xamante rek moom la doxalee trahison dëgg rek ndax lii nag dëppawul ak benn yoon li di démocratie rawatina suñu justice ci mbir mu nu mel nag ne nañ ay organisation yi nga xamante ne rek kii di Macky Sall mu ak Abdoulaye Wade ñoom ñoo ko leen neex nag lañ ci def du ñakk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd abonné bés cloche de notification ngir mun a am yeneen